gu ñu amoon ñëw fii ziyaara si mu may ñu fekke ak tal ba ñu mën ko mattal te may ñu ko ci jamono joo xam ne jamono jo ñuy fàttaliku di ñaanal di bàkk koo xamante ne képp ku yàlla bind rekk yëm nañu ne moo moo la gën ndax yàlla ñu wax loolu ñu jàpp ko gëm ko bu baax nag te di ko dund muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw nag ci ay sëtam kon ñëw fi nga xamante ne war nañu fa ñëw bu dee sàkku ñaan la rek ci réew mi ak ci suñu bopp ak ci ñu àndal euh, chance la ci ñun ci man ci ñi ma àndal ci gouvernement bi ñu mën a ñëw ci bés bi fekk fa kilifa gu tedd gi ñuy doore nuyu gi ci moom muy Cheikh Bou Sidy Mokhtar Kounta di xalif bi di ko ñaanal yàlla may ko wérgu yaram ak gudd fan dëgëral eh, ay cëram ba mission bi nga xamante ne mu ngi ci ànd ci njaboot gi yëpp mu mën koo matal bu baax a baax a baax eh, di nuyu tamit sëñ Bekaay Kunta moom mi nga xamante ne moo topp ci xalif bi di nuyu sëñ Amu Kunta ak sëriñ Mohamed Kunta ak sëñ Moodu Kunta ak Sidi sëñ Sidi Muxtaar Kunta ak porte parole bi muy xalifa Ababacar Kunta ak imam ratib bi Sidi Omar Kunta ak ñëpp ñi nga xamante ne tudd ñu leen waaye mel na bu ñu tuddee nii rek ci misaal tudd nañ ñëpp sànq bima ma toogee kilifa gu tedd gi lima ma njëkk a def mooy ma sawu ko waaye wax ko tamit mbegte gi ma am ci ñëw fekk ko mën ko wax fi réew mi toll waaye mën ko wax tamit mu ñaanal réew mi ñaanal gouvernement bi te ma am ko ci moom waxtaan nañu ci li nga xamante ne du mbiru boppam maa ngi ko doon wax porte parole bi sànq waaye mbiru dëkk bi la ci loo xamante ne da koy jëmal kanam di jëmal Sénégal kanam waaye loo xamante ne tamit wareef la ci ñun di àq ci ñi nga xamante ni ñoom la yàlla def tey ñu jiite leen muy sénégalais yi waaye ñii nekk fii ci dëkku sell gi mu doon loo xam ne nag dinañ ci taxaw taxawaay gu gën ak taxawaay gu mat ndax boo ñëwee ci kilifa ci dëkk mu lay wax waxu assainissement mu ngi lay woo ci loo xamante ne xam nga ne sa cër la en tant que état en tant que gouvernement bu la waxee ci éducation yi ñu nekk ci dëkk bi wax la ci agriculture wax na la sax ba wax la ci loo xamante ne sa programme bopp la waaye alhamdulilah ci bi suñu programme li ci gën a fës nekkee loo xamante ne tamit ci lañu kilifa yi di woote parce que day wane ne lu baax la te fa lañuy nit ñi di xaar la te yoon la tamit pour ñu euh, suqali Sénégal gi nga xamante ne Sénégalais yi xaar nañ ko ci ñun lool lool lool rawatina nag ci liy laale ci mbéy mi ak ci liy laale ci defar doomu aadama yi fi nekk muy diini gi démb rek ni ma ko doon diggee fan yi mu njëkk jaar ci yeneen këru diine yi tàbb nañu kenn koo xamante ne ñu ngi koy woowee Jim drame muy docteur di chercheur titulaire fee ci IFAN di chef laboratoire islamologie nekk koo xamante ne xam na diine waaye xam na diine tamit ci senegal te xam na këru diine yi ci senegal ndax gëstu na ci bind na ci e, teg ci loo xamante ne mag ñu baax ñi la ci réew mi kon ci ni ma ko doon sàkkoo ci kilifa yi teg nañ koo xamante ne képp koo xam ne dégg na ne moom lañ dénk cër googu ci réew mi xam nga ne dénk nañ ko kiñ ko war a dénk mu des nag gunge gi ndax ku xam Pastef gi ma bokk lu ma tëddee di nga xam ne am nañu lu ñuy wax mouvement des doomu daara patriote waaye jëlewuma ko foofu ndax ki ma jël mosuma ko teg bët bi may wax ak yéen nii waxante nañ téléphone ñaari yoon ma ne ko boole naa la ak premier ministre pour mu dem waxtaan ak premier ministre yónni naa ko sax ci invitation biñ ma joxoon Mauritanie ci semaine bi passé nga xam ne ci histoire yonent bi lañ doon waxtaane sallallahu alayhi wa mu dem teewal ma fa def compte rendu ba lay tey teguma ko bët kon ki ma bëggoon teg ki ma bëggoon teg ci place boobu bëgguma woon mu doon koo xamante ne ku d'accordul ak moom rek mën nga ko attaqué ci politique waaye ku laalewul ci politique la koo xamante ne xarañteem ak xam-xamam moo tax ci ifan ñu teg ko fa mu nekk chef laboratoire maanaam lépp luy su ci wàllu diine fii Sénégal ak fi ko fi ko weesu mu des nag jàppale gi ko kër diine war a jàppale te gëm naa ne dinañ ko ko jàppale ndax ñun suñu taxawaay loolu la loolu mooy li ñu digge woon noonu rek ñu taxawee dañu waxoon ne dañu bëgg diggante état ak diine mu doon lu ñu leeral ba bu jamono ji toll ni jotee man président de la république bu ma fi ñëwee su ma fi joxee dara mu doon lu jóge sama poche waaye luy jégel ci réew mi ñëpp xam ne lii état moo ko def parce que day taxawu diina pour gën a doolal diina ci réew mi te fii lañ doore waaye dinañ weesu foofu te maa ngi ko doon wax ci communication ma doon def dem conseil des ministres di wax ne fekk naa ko ci bureau de de l'assistance au daara la tudd woon sax ak de l'insertion des diplômés en langue arabe ñu def ko direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe waaye dinañ dem ci loo xamante ne sax ci suñu architecture gouvernementale moo féete ministère yi ci kaw muy délégation ndax fépp foo dégg délégation rek moo féete ministère yi ci kaw muy nar a nekk délégation euh, affaires religieuses certainement ak dénomination bu ñu nar a jàpp buy gën a yaatal pour ñu mën a téye ci nu mu gën a rafete lépp loo xamante ne luy dëgëral diina ci réew mi di ndax diina mooy defar doomu aadama te ko defarul doomu aadama mënoo defar dëkk kon suñu doxalin gi ngeen gis suñu diggante këru diina yi te mu yàgg ci ñun malgré lu ñu mës a wax yépp gëm-gëm la gu dëgër ci ñun daf ñoo fekk mu nekkoon ci ñun laata nuy egg ci nguur nekk ci ñun ñu di ko jëmal ci nu ñu mënee ak suñu kéemtalaay kattan ci bi ñu nekkee ci nguur te bu ko yàlla jëlee ci ñun jox ko keneen tamit ñu continuer ko taxawu ci noonu ndax loolu lañu gëm ne moo def mooy defar réew mi loolu moo tax diisoo gi mënta ñàkk te xam naa ne bu ñu installé euh, le ministre conseil Jim Dramé incha allahu rabbi dina def le tour des familles religieuses ya ndokk sax ci bi ma déggee na bokk na ci association boo xam ne euh, sànq laa dégg ci ñi ma doon dalal kenn ne ma ci kuddis la bokk mooy cadre unitaire de l'islam au Sénégal kon xam naa ne ñooñ dinañ ko gën a dooleel ak ñeneen ñi nga xamante ne diine ñor na leen surtout ci li war a gën a leeral seen mébét am nañ koy jébalee ci réew mi niñ ko waxee woon ci bu ñuy defar budget bi ñu ne lii nguur gee ko jël jagleel ko diine nii la toll xëy na buñ ko emalee ci benn ku nar a topp ci ñun dina ko yóbbu ci ñaar ku topp ci kooku yóbbu ko ci ñett ba keroog muy nekk loo xamante ne dina takku pour lépp loo xamante ne taxawaay la mu nekk ci jamono yu mel nii wala mu nekk ci lu melul nii waaye mu laale toujours ci diine taxawaay gi dina mat sëkk. kon mi ngi woo ñëpp ci ñoo xamante ne mën nañoo jàpp ci liggéey bi ci côté boobu ñu dooleel cadre boobu nga xamante ne. suñu bopp lañ ko defar waaye diine gi lañ ko defar Sénégal ak fépp foo xamante ne sénégalais fa nga sénégalais nga fa am yéene jaamoo yàlla ci anam yooyu di delluwaat nag ci cité gii di Ndiassane sànq bi ma euh, porte parole bi di xalifa Ababacar Kounta waxee ndax mos nga fi ñëw dama ko ne waaw mos naa fi ñëw te jamono ji ma ji ma fi ñëw woon demoon naa justement ba ca moom fekk mu ngi doon euh, taxawal jumaa ji macha allah ci bu ñu ñëwee fekk mu egg waaye am na liggéey bu fa tàmbalee te du jeex mukk mooy liggéeyu njàngale bu daara ak liggéeyu defar doomu aadama teg ko ci li nga xamante ne mooy gën gi yoon muy yoonu diine mu doon loo xamante ne nag lépp luñ ci war dinañ leen ci jàppale jaarale ko justement ci cadre kuréel boobu nga xamante ne teg nañ teg nañ ko fi te fas yéene ko dooleel ba mission buñ koy sant mu doon mission yu leer ndax dañ ciy bokk booloo waxtaan waaye mu doon mission yoo xamante ne dañ ko jox moyen yu am doole yu tax mu mën ko remplir incha allah rabbi di delluwaat ñaan bés bii nga xamante ne dégmal nañu ko yàlla matal lépp te ñi fi ñëw yàlla indi leen ci jàmm delluwaat leen ci jàmm di ci profito nag di woo parce que ku ña ku ne njaasaan ne doomu aadama yi taalibe yi di jóge fu ne di ñëw te képp ku jóg oto ngay war rek pour ñëw ku wax oto wax tali ñuy woo ñi nga xamante ne ñu ngi tegu ci tali bi rawatina ci nawet gi ñu gën a góorgóorlu xam na ay bakkan la ñuy yëpp xam na responsabilité la ci boo teyee volant ñëpp toog ci gannaaw kenn mënul jooyante loo def waaye ku ne di xaar ci yow nga yóbbu ko ci jàmm fu mu la fu mu la fay pour nga yóbbu ko fa waaye nga delluwaat ko ci jàmm di ñaan kilifa yi ñu continuer tout le temps ci seen message jàppale ñu ci loolu di fàttali parce que fàttali gu am njëriñ la te fàttali guy sowe bakkan la ndax ay décisions yi loo xamante ne souvent dinañ wax lu ne jéeyee rek la ñuy gis waaye lu ko sokke dañ koy fàtte souvent kenn ay def lu mu warta def tooñ sax ba tooñaale kenn ku nekkoon di def lu mu war a def ci kaw télé bi parce que boo génnee double ci foo warut double di nga daje koo xamante ne mu ngi teg woon ci yoonam dawal lu mu war a dawal muy ay bakkan kese yu ci rot te bëri na trop nag waaye occasion sensibiliser du ñàkk mokk ñi ñëw nag nañ ko bàyyi xel di leen ñaanal yàlla aar leen ci télé bi yàlla dina leen aar waaye am nañ ci loo xam te seen responsabilité bopp la tamit nañ ko matal seen wattu ci baax euh, te yàlla nangu lépp loo xamante ne dinañ ko fi ñaan ñaanal ko réew mi ñaanal ko jaam yi waaye tamit yàlla may ñu ñu fekke waat ko ay déwén yu bare gën ko mën a waajal nu concernant ndax xëy na délai bi xawoon na gàtt ren waaye incha allahu rabbi bu ñu génnee ci cérémonie yi yëpp ministère de de l'intérieur dina def rapport parce que lépp lu weesu rek def na ci rapport waaye day laaj mu def rapport général mu doon base de travail direction des affaires religieuses pour ñu teel a xam après tournée bu muy def ci famille religieuse yi naka la ñuy waajalee déwén pour lépp loo xamante ne manqué na fi déen ñu góorgóorlu bu bu matul tamit li ciy manqué ba ñu toll ni ni li ren bu ko defee de d'année en année incha allah dinañ am ay résultat yu probants yoo xamante ne dinañ gis na avancement am na ci ci ni ñuy euh, sayto ak euh, di utee saafara ci liy jafe-jafe ci bi ñu eggee ba ci jamono yu mel nii ñu ngi leen di masow bu baax tamit ci toogandig xaar gi di leen sant bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah dooree sama kàddu di sant yàlla bu